la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ya himmata sayqi uhduri lana bi asal ma'dar wal ta'ti fi bi nasratin ta'ti lana bi safar bokki julit yi bokki yi Paradise TV dellu si nañ ànd ak ci seen jataayu firi alquran ngeen jox ñu nopp yi jox ñu xol yi ak xel yi ñu ñëpp ñu bokk gëm ne téere borom bi tabaraka wa taala la ñuy waxtaane te yonti yàlla muhammadu nee na inna xayral hadisi kitaabullah wa xayrul huda huda muhammadin téere boo xam ne pour ñëpp la pour fépp la pour ñu ngi fii ci Paradise TV ci ngoon aljuma gu nekk bu juróomi waxtu jotee ñu fas yéene ànd ko yéen nag ci noonu ci ndimbalal Paradise TV ñu nuyu nag Mr Arona drame mi kilifa gi di nuyu watam di nuyu liggéeykat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci barab bi yëpp di nuyu suñ xarit saskebe ak soxna yi nga xam ne ñoo nekk ci caméra bi di sant yàlla nag bu baax ci may gi ñu may ñu oor ci jàmm dog ci jàmm di leen wax ne tafsirul quran insha allahu dafay continuer ak yéen fii ci Paradise TV ajuma ji jot friday bu nekk ca ngoon bu juróomi waxtu jotee su ko ñi ngi ñaan borom bi tabaraka wa mu may ñu ak fekkee mu yaatal suñ dënn te mooy suñ xol te mu leeral suñ làmmiñ ba nga xam ne luñ wax danañ ko mën a dégg ñun yéen ngeen mën koo dégg ñu jëriñoo ko yéen ngeen jëriñoo ko ñi ngi woon ak yow ci suratu baqara ci hisi bu waskurullaha waskurullaha lañ woon bopp isi bla la ci mbiram xaj nag lañ doon waxtaan bi ñuy jeexal ci wéru koor yi suñu lesine bu mujj ñi ngi woon ci xaj màkk xaj màkk benn pila la ci piilay islam yi manam ponk la wala la wala nga ne benn kenu la kenu islam piila yi juroom lañ su julit bi waxe ci làmmeñam ne seede ne yalla kenn la yontu yalla muhammadu yalla ko yonni ak la ci aju yépp ñaareel ba mooy na julli waxtu juróomi ñetteel ba mooy na génne asaka alalam bu matee nisaab ñeenteel ba mooy na oor weeru koor ci fukki weer yeeg ñaar mu génn ci benn weer oor ko juróomeel ba mooy mu dem màkk màkka nag fi ko yàlla santaane ci alquran foofu lañ toll léegi ñi ngi ci aj gi bi aj gaa ngi bëgg a jeex ndax egg nañ ci sànni jamra xam nga aj màkka bu mu ngi dooree ci boo xarmalee wër kaaba gi dox safa ak marwa bi si juróom-ñetteel ba ca tabaski ñi dem muna juróom-ñeent ñi dem xarafa jógee xarafa ca ngoon dem musdalifa jógee musdalifa nag ca bisi julli ga dem nag ci jamra ya foofu nag lañ toll mooy sànni jamra <clears throat> borom bi tabaraka wa taala nee na waskuru yéen hajkat yi waskuru laaha na ngeen di tudd yàlla di ko màggal fi ayaami fi ayaami maalumatin fi ayaami mahdudatin ci fan yuñ konte yi mooy ayaamu tasrix ayaamu tasrix mooy ñetti fan ñetti fan yi ngay sànni jamra dañoo bëgg nga bëril tuddu yalla haj ga nge ñew jeex bo fa jógee rek ci bisu tabaski bi ya nge dem wut wutuk ifada sanni jamra joju na nga xamne dafa am lu sembul bu muy wone ci l'islam moom lay wax ne nañ ci tuddu yalla ta nañ ci magal yalla waskuru laha na ngeen di tuddu yalla yen ñi haji ca bu ngeen di sanni jamra na ngeen di magal yalla fi ayamin maadudatin ci fan yuñ konte yi mooy fan yuñ limi muy ñaata fan muy ñetti fan fa man tahajjala ku lëmës na ko mooy ku yàkkamti na fii yow may ni mu def jamra yi ci ñetti ci ñaari fan mu bàyyi ñetti fan ya maanaam mu def ko ci ñaari fan falaat dégg nga falaa ismaale yi amut bakkaar waaye liman ittaqa al ko ragal yalla kon wattaqullaa ragal len yalla wala mo ta ngeen xam ne annakum naka yéen tuxsaroona def na dajale len ilay ngeen delu ci yalla kon aj ngo ndeke moom aj màkka itam escalier la yu egalé jambi bi pour yóbbu ko ci taqwallaa moy ragal yalla kon sanni len jamra ngeen magal yalla ci fan yoyu nga xamne moy ayamun mahdudat dafa am ayaamul mahdudaat ba pare am ayaamul mahlumaat soo déggee ñu ne ayaamul mahdudaat ci alquran mooy bis bi ñuy rey xar yi bisu tëbaski bi ak ñaari fan yi ca topp loolu mooy ayaamul mahdudaat boo ci sànnee jamra rek baax na waaw ayaamul mahlumaat boo ko déggee mooy bisu tëbaski bi da nga ko ciy génne Euh, maanaam bi bisu tabaski bi ci lay bokk waaye da nga ciy yokk bisu ñeenteel ba loolu laa bëgg a wax da yokk bisu ñeenteel ba muy ayaamul maalumaat waaw comme bisu tabaski bi ñuy rey xari nga konte ko muy benn nga teg ki ñaari fan muy ayaamul mahdodaat fani màggal yàlla la fani fani tudd yàlla la ayaamul maalumaat mooy bisu tabaski bi ñuy rey xari da nga koy génne nga teg jël ñaari fan ya ca topp ak bu ba ko ñeenteel kon ñetti fan after tabaski mooy ayamul mahlumaat bisu tabaski bi ak ñaari fan ya ca topp mooy ayamul mahdudaat waaye yëpp rek ñetti fan la yëpp rek par ñetti fan la kon nga xam ne symbole bu mat bu mat la bu rëy la ci lislaam ñetti fan alquran dana koy lépp wa salaamu alayya yawma wulidtu wa yawma amuutu wa yawma ubhasu hayyan muy ñetti fan qul a'uuzu bi rabbi naas maliki ñetti nit ñi ñoo dëkkee ñetti fan ñi ñetti nit ñi ñoo dëkkee ñetti fan yi nit ku ci nekk égal nit ñu bari ñi dégg nga bi moo tax sànni jamra ci ñetti fan yi alquran di ko wax ne nañ ci màggal yàlla duut ay làmbutu ñetti fan yi fan yi màggal màggal yàlla la ca màggal yàlla ga nga ca am lu tax jël xeer wi sànni ko ci kaw xeer te xeer woowu suufa ko téye suuf maanaam yow mi ko téye suuf nga xam nga ne dama dama suuf la wala bo waaw suuf la bu faatoo bañ dugal ko ci suuf rek mu soppeeku suuf kon suuf la léegi suuf soosu moo jël xeer muy ñaar mu jël xeer sànni ko ci kaw xeer ñett taxawaat na moo tax léeg-léeg la sànni jamra saytaane ngay sànni loolu mooy sembul bu njëkk bi ca saahir waaye ëpp na loolu de léeg-léeg nga gis koo xam ne day sànni di sànni doole mel ni mu ngi tiim li jam du loolu de téyal xeer wi rek nga tudd yàlla allahu akbar nga sànni ko gis nga boo xamee loolu yow mi téye wi ak xeer wi ak fa ko sànni bu boobaa jël nga ñetti fan yi jël nga ñetti nit ñi masaayiru salaasa yaa ngoog ñëpp ngay jël sànni ko ci mutasaayir bi masa masaayiru salaasa yi mooy ñetti feeñuwaay yi nga jël ko sànni ko ci mutasaayir bi yow yaa sànni jamra maanaam gis nga bu fekkee saytaane ngay sànni du wut xeer woowu moom ngay jëm saytaane bu doon ni sànni jamra sànni saytaane rek lañ ci jublu konoon jarut dem màkk déedéet jarut dem màkk konoon kenn ku nekk ci ñun bu bàyyee xelam Hmm? fi mu nekk ci këram fi nekk ci biir néegam seytaane nga ko sonnal bu génnee ci kër gi ci njaboot gi seytaane nga ko sonnal bu génnee ci mbedd mi seytaane nga mu mel ni xeex ak seytaane laaju dem mag alquran nee na qaatilu lasina yaa ayuha lasina amanu qaatilu lasina yaluunakum min alkufaari wal yajidu fiikum xilsa waalamu anna allaha ma almuttaqin yalla neena yeen ñi gëm yalla na ngeen xex ak yéfer yi leen jégé yéfer yi leen jégé yéfer bi la jégé kan la yéfer bi la jégé moy sa bakkan bi bi dafa am ñi nafsu khalqi ak nafsu haqq nafsu haqq moy bakkan bi lay yobbu ci yalla bakkan bi lay wan yalla nga xamne da nga jëriñ sa bop jëriñ jaami yalla ak bakkan bi nga xamne nafsu khalqi la mom lépp mbiri mbiri banex rek la Mom mo lay xiir jëmm yalla ci moo lay leri leeri yunti yalla muhammadi yi bakkan boobu nag la yalla di wax ne ngay xex ak mom fo tollu am ngeen combat yéen ñaar yow yow nit ki bakkan bi nga xamne nak mu ci sa digeunte ñaari wag gi nga wara xex ak mom lol jarun dem makka di te kooku moy fo setan bi ànd ak yow kon buñ la waxe ne nañ sanni jamra ñetti fan yo xamne dañ koy jël xeer diko sanni xeer di wax allahu akbar so yaakaare ne setan ngay sanni fofu rek nga gisee ko nonu da ngay daanu jël bu metti ndax foofa bu doon ne seytaane nga fay jam boo ko jamee xeer yi ba ne dee na xanaa boo ñibsee da ngay jub te ci yoon noonu la war a demee képp ko sànni jam nga xam ne jam nga seytaane boo del si ci kër gi da ngay fekk sa lépp dafa war a nekk njub kon nag yàlla nee na ci bisu jamra yi nañ sànni jamra ci ayaamul mahdoo daat muy bisu julli bi ak ñaari fan yi ca topp waaye nag ñi boole koog nag takk biir allahu akbar kon lu luñ jublu ci sànni jamra moy xam yalla gi nek ci biir sanni jamra waskuru wallaha moy xam len yalla fi ayamil mahdudati ci ñetti fan yi nga xam ne moy masaayiru salaase xam len ci yalla magal yalla ci lamagne allahu akbar allahu akbar ni ñepp a ngi koy wax ci àdduna nabi waye ba léegi jeexitalu dara kon waskuru wallaha ci lamagne alquran moy xam len yalla fi ayamil mahdudati ci ñetti fan yoy ngeen di jël xeer di sanni ci kaw xeer ngeen ci xam yalla ndax ñetti fan yooyu mooy ñetti fan yi nga xam ne bis bi nga juddoo bis bi ngay dee ak bis bi ngay dekk sembul boobu la lay jox mooy masaayiru salaasa yi ñëw tolloog melokaan wi ak tur wi ak jëmm ci sifa ismu saatu mutasahir bi nag boo jëlee mbooleem ñetti feeñuwaay yooyu nga sànni ko ci mutasahir bi muy feeñuwaay borom feeñuwaay bu mag bi te mooy yàlla kon jëlal lépp sànni ci yàlla mu mel ni yunti yàlla ah, ah, Moussa ba ko yàlla di wax na ko faxlax na alayka innaka bil waadil muqaddasi tuwa simmil sa daal li yaa bu sell bi daal li yooyu du daal li yim soloon ci tànk yi mooy sànnil sa wujjoot gi sànnil soxna si sànnil doom yi sànnil gàtt gi nga mën a delsi ci yàlla ndax loolu yëpp kira la sa digganteeg yàlla kon inna salaata tanaa anil faxsaa'i wal munkar julli day tax ngeen bàyyi faxsaa muy lu ñaawal munkar ak luñ sib wala sikrullahi ak waaye tudd yàlla moo gën a màgg tuddi yalla mo gëna mag fofu lu tax ma isiko ko waskuru wallaha bi moo tax ma isi ko bu fekke yalla dafa wax mu ne nañ julli julli day tax ñi bayyi lu bon lu ñaaw ak lu bon luñ sip lu ñaaw lan la luñ sip lan la suñ ko bayé nak wala sikkuru la akbar te te yow julli gi yëpp tuddi yalla la yow julli gi yëpp yaangi tuddi yalla yàlla ko julli gi allahu akbar ñuko bi nga kami fatih bi ngay jang alhamdulillah yang mom be ba jeex ngay jang soora se gëna allahu akbar nga sigina se sami allahu liman hamido yow kay julli go yaa tuddi yalla kon nu julli gi di ba paré yalla ne wala akbar mo gëna mag julli hmm? loolu la firikati alquran bu mag bi kat bu mag ba ci Dakar di wax ne wala sikkurullahi akbar mooy xam yàlla gi nekk ci biir julli te loolu mooy mooy li xel mën a jël kon julli leen ngay wax allahu akbar jàng alquran yaa ngi tudd yàlla nga pare mu ne wala sikkurullahi akbar wala sikkurullahi xam yàlla gi nekk ci biir julli gi akbaru moo gën a màgg kon julli boo ci xamul yàlla su boobaa julli gi du màgg dafa mel ni yow màggalaguloo yàlla wala jaamooguloo ko soo waxee allahu akbar ci sa njëlbeen yëkkati sa loxo yi ba sànni ko hmm? jël ko tak ko ci sa ko dënd bi wala dang lo ko yor yépp amna lo wax lo lo isaara ci pay yalla bi amna maqama mo moo joxe nga nga jang li ngay jang ci melokan bu ne allahu akbar seggat toxu nga ci maqama dem ci benen benen maqam nga siggi wat ne sami allahu liman hamid delu ci fa nga taxawé won bu bi tam amna lo wax muy ñaar muy ñett nga ne allahu akbar dem su muy ñentel bi amna lo wax yalla ne wasjud waqtarib su nga jégué yalla maqaama moomu boo ko xamee dafay jegeloo nit ki yàlla ndax borom dafay xacc jaami yàlla di leen yóbbu ci yàlla nga siggi toog taaya selmal hmm? ca juróomeel ba kon julli gi xam yàlla gi ci julli moo gën a màgg la alquran di wax ndax julli dana tax nga bàyyi fax muy lu ñaaw lu ñaaw bokk na ci mooy lan mooy yow nga nekk fi yàlla nekk fi nga bëgg koo wéetal dara gënta ñaaw sa wujjóot gi nekk fi te yow dara isi wale wul woon dara waaw gis nga iblis la ko reyoon mooy ana kairun minhu maa ko gën maa gën aadama ana gis nga ana day yàq lu bëri man yow amuloo yow ma jaas nga ana googu moo ko yàqaloon su ko defee kon euh, waskuru wallaha fexe leen ba xam yàlla fi ayaamin madudati ci ci ñetti fan yi mooy fan yuñ konte yi bis bi ngay rey xar mi xar mi ngay rey am na lum taxawee tëral gi nga ko teg jël paaka teg ci puut gi nga sotti deret ji nga sotti deret ji mu dee nga dem lekk ko hmm? taxawallaa nga ca nekk yàlla mu ne soxlawuma dégg nga loxoom bi muy yàpp wi ci suratul hajji soxlawu ma yàpp wi soxlawu ma deret ji wala waaye kenn ñetteel balaa soxla mooy taqwa bi kon soxlawu ma sifa bi soxlawu ma ismu bi waaye saatu balaa soxla lu nekk rek taqwa ba lañ soxla moo tax boo ñëwee fii ci aj gi da fekk borom bi tabaraka wa bi muy waxtaan ci mbiri aj tudd na fi ragal yàlla juróomi yoon fa in fa wa tasawwadu fa inna xayra zaadi taqwa mu teg ci ne wattaquuni na ngeen ma ragal yaa ulil albaab yéen borom xeli selli gis nga kon ci biir aj gi tudd na ragal yàlla dégg nga juróomi yoon wa tasawadoo fa inna xayra zaadi taqwa mu waxaat ne wattaqullaaha wa'lamu anna allaaha sadiidul iqaab muy ñaar wattaquuni yaa ulil albaab muy ñett mu ne dégg nee na fa man tahajjala fii yawmayni fala isma alayhi liman ittaqa muy ñeent juróomeel bu mu ne wa taqullaha wahlamu annakum ilay tuxsaroon juróomi taqawallaayi du caaxaan waaw kon boo demee ca boo demee ca masahir ya ca asal am nga fa taqawaa nga ñëw ci masahir ci nubuwa am nga fa taqawaa nga ñëw ci masaayir yi ca wilaya am nga fa taqwa nga ñëw ci masaayir yi ci xilaafa am nga am nga fa taqwa masaayir yi ci ci euh, ci xilaafa nga am fa taqwa gannaaw boo ko amee ci nuboo wilaya xilaafa soo ko amee ci xilaafa nag taqwa bi nga xam ne nag moom mooy wàccuwaay bi nag mooy wa taqullaha wa alamu annakum ilayhi tuhsarun taqwaay biñ leen di fangee yéen ñëpp dajale leen ca borom taqawaa bu mag bi mooy mutazahir bi loolu fa la jaam bi di amee nag tawhid boo xam ne su ko amee dootul ko ñàkkati mukk fa lay wéetalee yàlla fa lay joxee yàlla gëddam fa lay xamee jaamab yàlla bi jege gim jege yàlla wala boog yàlla jege gim jege jaam bi waskur wallaha fi ayamin mahdudat kon nañ bàyyi xel bu baax alquran ñun ñi muy waxat waaw tudd leen yàlla ci ñetti fan ya ayamul mahdudat léegi dafa man taajala fi yawmayni koo xam ne dafa gaawee mbir ya ci ñaari fan ya fala ismahale wa man taaqara ku yéexee na ko nga xam ne daf laa neex nga ne dama koy damay def ñetti fan Eh, gannaaw fanu tabaski bi falaa isma alayhi amul bakkaar loolu nag li ma ni taqaa ma nga ñeexal ña nga xam ne ragal nañ yàlla wattaqullaha walam annakum ilayhi tuhsarun kon aj màkka taqawaalaay uti julli taqawaala uti xoor xoor xoor weeru koor taqawaala uti loo xam ne nii yàlla sant nañu ko rek escalier la yu éegal jàmbi pour mu egg ci taqawalla ragal yàlla mooy def ndigal yi tere ci niko yalla beugé do ko def yow ni nga ko bëggee la ko serigne bi firé won euh, euh ahmad ibnu mahamad atiyan al fasi mango kon borom bi tabaraka wa taala sant nañu ñu tuddu yalla magal ko ci bis yoyu bisi julli gi ñe nek makka ñi ngay sanni jamra di tuddu yalla di ko magal te wax naa la ne tudd yàlla gog màggal googu alxuraan di wax égal xam yàlla ci fan yooyu la ñetti fan yu am solo yooyu waaw su ko defee ah, ñi nga xam ne demuñ màkka ñoom tamit sant nañ leen ñi niroo ak ñi aji màkka ñu xam ne yàlla ma nekk màkka mooy yàlla mi nekk Gambia rek mm, gënta nekk place ci place waaye day gën gën a feeñ barab ci barab yàlla gënta nekk place ci place waye day gëna feñ feeñ barab ci barab manam day gëna nek nekk barab ci barab ah, ah, de nga gëna feñ gën a feeñ barab feeñ waaye mi day gëna feñ ci barab place ci place lu la bëgg wax lu la ko xamal moy bisu arafa ah, wa makka ñi nga endu ci arafat de nga taxaw fa yow nga nek gambie ñi la xoral and ak ñom sétal ñom ñafa taxaw duñ or de waye yow mi nek gambie yow da ngay or yow yow da ngay or su ko defee yow da ngay or ndax or mooy fanaaw dog mooy baqaaw te yow mi nekk fi te demagu la yow dañ lay compter comme ku nekk ci fanaaw ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk màkk nga xam ne dem nañ ca Kaaba ga dem ca uh, rukkunul yamaane hajarul aswad ñi jógee fa dem ca uh, dégg nga maqaamu Ibrahima uh, Safa Marwa dem muna Harafa Musdalifa sànni jamra ñom ñi ngay dox melokan ya turiya ñom ñoña ñom duñ or ñom ci dog lañ toll yow mi nga xam yow oral nak nga mëna mata ak ñom mata kenn ku ne di ñaan dem màkka ndax ku or ku ne li nga ñaan yalla moy dog waaw boko sello itam de nga tebeski yeñ fay ray dañ la wax yow mi nekk fi na la rayal tebeski yow tamit jëlal xar nga ray ko ta xar ngay ray boko sété am na xar mu la gën a jege moo xam ne moom lañ bëggoon nga rey ko kon xar mi mu ngi symbolisé mu ngi lay bëgg wan won moom xar mi sa nafsu xalqiya bi nga xam ne mu ngi ànd ak yow xiir la jëmmi yàlla ji xiir la pay yàlla bi te boo lëgee mu xañ la aljana bakkan bu saay-saay boobu moom ngay njëkk a rey nga door a mën a dem jëndi xar rey ko su boobaa xar mu mu ngay rey bu dee reyloo sa bakkan bi ci pay yàlla bi rey nga xar mi rek ndax ëpp ko doole waaye ba tey jëriñaguloo lu bëri ndax yàlla moom nee na man deret ji ngeen sotti ama ci soxla ndawal gi ngeen di lakk di lek amu ci soxla lan la laa luhumuha wala dimaa'uha walakin yenaalahu taqwa minkum So genné deret genné ndawal rek yow xam nga ndawal moy kan fan la ndawal gi moy lan suuf la ndawal gi borom suuf yow xam nga deret moy lan deret moy roho serigne bi danay wax neena na deret moy roho mune balang ko xam rek mune xarma ngi ni handak gi rendil deret ji sotteeku waye xar ma ngi ni na médd rek ba ba roo gi ba gi du genn lol xam-xam la kon borom deret ak borom ndawal yalla néna na soxla ci ñom ndax kay lañ ma nga soxla borom taqwa Bu aggé ci borom taqwa kooku moy fi nga xamné fa ngay mëna amé taqwa la fa la nit ki di mëna amé tawhid bu doy fa ngay amé tawhid bu doy ndaysan ndaysan kon wa annakum ilay kon ñetti fan yaa ngoog te mooy ayaamul ma mahdodaat ak ayaamul mahlomaat kon faskuru wallaaha ka sikrikum abaikum waaw da leen tudd yàlla ni ngeen di fàttali ko seen bàyyi ak seen way jur yi waaw doomu aadama dafay bëgg di fàttali ko baayam di ko puugare woo bu dee xale la day bëgg di gis baayam di ko puugare woo bu dee mag la papaam faatu na dafay bëgg di ko fàttaliku di ko tudd di ko puugarewoo noonu ngay fàttalikoo yàlla di ko puugarewoo di tudd yàlla ci sa làmmiñ di puugarewoo jeex gi nga jeex ci yàlla delloo gi nga delloo yàlla njukkal loolu ngay puugarewoo moo tax mu ne tudd leen yàlla di ko fàttaliku ni ngeen doon fàttali ni ngeen di fàttalikoo seen seen bàyyi aj màkk gi am na ci ñoo xam ne dañuy wax ne rabbana atina fi dunya hasanatan jeexal nañ ci ñoom bu ëllëgee ci Allah duñ ci am dara ndax fi dunya asanatan lolu moy ñom ñi nga em ci bismillahir rahman dañuy taxaw ci rahman rek nga xamne moy borom saayiru moy borom soxlo soxlawuñu alamul akhirati amna ñoo ne egg nañ ci alamul akhirati moy ci rahim wa minhu man yaqulu rabbana atina fi dunya asanatan wa fil akhirati asanatan waaw góor ñi ñoo ag ci maqamam ag ci ah, rahim moy alamul akhirati ñom dañuy soxla aduna soxla alakhirah wabtaqi fi ma ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia ñi taxawee ñaari tànk ñaaji màkk nii lañ mel waaw am na ci ñoo xam ne wa min annaasi man yujibka qawluhu fi hayati dunia wa yusidu laaha ala ma fi qalbihi wa aladul xisaam am na ñoo xam ne ci haj gi yàllaa ngi wax yuntu bi ne ko ñoom de dañoo sànni seen aduna eh, dañoo dañoo sanni seen alaxira jëndee ko aduna suñ kàddoo mu rafet waaye lañuy la ñuy def dégg nga wanul leen yàlla amul leen benn njëriñ waaw am na ci ñoom ñoo xam ne nag dañuy jaay seen bakkan seen nafsu xalqiya la ñuy sànni dal di ko jëndee àllaaxira muy seen nafsu xàqu bi ñooñ lay wax ne waskur wallaha fi ayamil madudaat ñooñ ñi mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy tudd yàlla ci fan yuñ konte yi ci ñetti fan yi nga xam ne moo tolloog masaayir yi yunti yalla ma man man hajja falam yarfus walam yafsuq rajaha min sunnoobihi ka yawm waladatu ummuhu ah. yunti yalla muhammad neena na ko aj makka bi nga ajee ba armal seyulo, bi nga ajee defula ben cianciay moy mooy xeexuloo so dello bu aj gi jeexee set nga ci bakar comme na la sa ndey juree ah. walaysa li hajjil mabruur ila ilal janna beneen addis mu ne aj goo xam ne dañ koo nangu payam mooy aljana kere boo wotee wotug ifaada rek yow moom pareel ne yaa ngi aljana waaw mandarga aj gu nangu nag mooy aj goo xam ne gannaaw bu borom ñibsee dafay am li ñu tuddee mutawaadi lay nekk nekk zahid waaw loolu lu muy tekki mooy xajam gi yàlla nangu na ko bu ajee ba ñëw day suufeel boppam bu ajee ba ñëw day dëddu aduna nga xam ne Euh, kaaba gi doon wër fàttali na ko jëmmi yàlla ji moo tax sëriñ bi ba muy wër kaaba ga def ko ne kaaba gi maa ngi lay wër ndax xam naa ne kuñ màggal nga fa yàlla waaye sama xol bi moom wërul la xol bi moom yàlla lay wër fa xal bi xawla saatika xayyama xol bi moom maa ngi ko kaste ca yàlla fa laa ko teg léegi nag maa ngi laay wër ndax gis naa ne kuñ màggal nga comme ay Omar ibnu Xataab la mu waxoon ajrul aswad dama ko damaa gis yunti ma di la rek moo ma fóon la waaye xam naa doy rek nga kon kooku wan na doj wane bu fekkee doj rek nga nekk di gis kon ba léegi yaa ngi nekk ni di zahir waaye bu fekkee doj woowu mu ngi lay jox symbole bu rëy ci lislaam nga xam kan mooy borom doj nga xam doj lañ la féetee wa tara jibaalu tahsibuhaa jaamidatan wa hiya tamurru marra sahaabi alquran nee na yéen a ngi nii gis doj yi ngeen foog ne doj yi dañ taxaw benn place te ñi ngee dox dox bu gën a gaaw bi niir di dox kon hajarul aswad bi nga koy fóon jàppal ne hajarul aswad mu ngee dox ci biir pays yàlla bi waaye ban doj la bu fekkee doju saayir wii ci gannaaw kër gi nga doj doj woowu doxul dem fenn doj woowu doxul dem fenn waaye doj bi alxuraan di wax ne yéen a ngi xool mun maawunti nii ngeen yaakaar ne dañoo taxaw te taxawuñ doj yooyu doj euh, dëgg lu jar a xam la doj woowu nag moom ngay fóon ca xajarul aswad moo mo doj woowu moo lay mooy moo lay symboliser taqwallah te mooy ragal yàlla waaw la mu annakum ilay tuxsaruun ilay dégg nga ilay tuxsaruun waaw aaya bi ñuy dugg wàcc na ci benn waay bu ñu wax laxnas bun sariq wàcc na ci moom rek mun na naafiq la woon waaye ba léegi day matale nag maanaam xaasatan la laxnas bun sariq waaye amatan baynal euh, euh, dégg nga bayna bayna bayna naas mbooleem nit ñi rek ndax alquran pour ñëpp la pour fépp la pour faaw la waaw laxnas bun sarix dafa nekkoon benn nafiq boo xam ne bu doy waar la bu nekkee ci jataay yunt bi sallallahu alayhi wa sallam wax ji day rafet ku wax mu wax la lu mel ni waaw waaye bu génnee lépp lu yàqal jullit ñi rek loxo manki wala tànk manki bu génnee sàcc mooy liggéeyam di rayit juri jàmbur yi di yàq mbay téefi tooli jàmbur yi yàq rek mooy liggéeyam ci kaw suuf te bu ñëwee ci kanam yonent yàlla Muhammad làmmeñ wa day leer day melni ni macha allah day san day saan bun sarix momu suñ lako tuddé nafiq la waaye du ne da nga japp ne mom rek momam aya bi aya bi pour ñepp la waaw borom bi wa taala ne ni yunti yalla mamad wa mina naasi ci nit ñi man ko xamne yu jib ka dana mu yem la wo waxam fi hayati duniyaa ci dundee duna bile ak rafet kaddu bu kaddo nga yaagar ne ki ki amul morom wax ja day rafet lool waaye wa yusiru dana mu seede allaha yàlla ala fi qalbi la ca xolam yàlla ngi lay seede lool la ca xolam na la naafiq la huwa moom aladul xisaami bu mag la waaw ngi génn ca la ca xol ba bu feeñee nga xam ne kii xulookat bu mag la waaw bu mag la wa isaa tawallaa bu du mooyoo wa isaa tawallaa bu dëddoo joxe gannaaw saxaamu ngay dox dégg nga di jëf filaat ci kaw suuf li yuf si da ngir na mu yàq fiaa ca suuf dégg nga wa yuhlika ngir na mu xalak alxarsa mbay téef mi wa nas la ak ngir téeli wallaahu yàlla laa yuhibu sopput alfasaada yàqkat yi wa isaa qiila ndem waxeef na lowoo ñeel ko moom lax nas bun sariix naafiq boobu ne ko ittaqillaa ragal yàlla aqasathu japp ko alxensatu réylu bil ismi ci bakar de fa hasbuhu doy ko jahannamu jahannam la bisa bon na almihaadu lal ba jahannama la mangok kon aya bi ngi tek ci tuddu yalla aya bii mu ngi wacc ci mbollem nit ko xamne ne nafiq nga yore nafiq ci l'islam nak boko xamut moy ko xamne ne wa dana neex lol buy wax ak yow daf lay feeñalal ne mu la bëgg daf lay feeñalal ne mu ngi ànd ak yow daf lay feeñalal ne gëm na la waaye bu la joxee gannaaw xol ba daf la weddi xol ba bëggul la te itam lépp lu la yàqal rek loxo ma ngi ci biir loolu mooy naafeq loolu nag boo ko seetee moo gën a sonnal sax lislaam ndax lislaam bu fekkee tey yow danga ne gëmuloo islaam gëmuloo yàlla gëmuloo gëmuloo nga dem ci la nga gëm rek yow xam nga doo sonnal kenn waaye ki gën a disturb islam mooy ki wax ne moom gëm na bu ko defee ñooñ lislaam dañ koy boole ndax Fatima lañ ko tuddee wala Mariam lañ ko tuddee wala Moxtaar lañ ko tuddee wala Babacar lañ ko tuddee wala Muhammadu ñu ne waaw moom de bokk na su ko defee muy ànd ak jullit ñi te lu yàqal islam rek loxoom a ngi ci biir kooku neexut a daw saytaane woo xam ne boo ne auzu billahi mina seytaani rajim mu ne auzu billahi mina seytaani de te loolu dafay dal jaami yàlla yi da gis sëy boo xam ne sëy ci biir kër yi sëy boo xam ne la koy yàq seytaane wu leen jege la waaw mooy lan mooy kenn ci ñoom moo nekk naafiq dafa am ci ñoom ku feeñal mbëggeel te du dëgg ci moom benn jëkkër la wala jabar la di la wax lu neex te gëmul la de xëy na sa la bëgg wala am na lu tax rek mu topp la yàgg yàgg dana yàq te loolu noonu la amee ci diggante wéyjur ak doom noonu la amee ci diggante liggéeykat bi ak boosam noonu la am amee ci mbooleem foo dem rek da nga fay fekk lii ñuy tuddee melokaanu nifaaq moo tax alquran dafay bëri lu mu ko isi lool nifaaq xeet la ci xeeti kéeféer yi mooy bu la waxee wax ja day rafet waaye la làmmeñ war a wax xol ba gëmut ko léeg-léeg mu wan la ne ku la bëgg laa fekk bëggul la léeg-léeg mu wan la ne maa ngi yow a ànd fekk àndut ak yow loolu nag yunti sallallahu alayhi wa alihi daf ko bari lewon torop ci bir midinaam ga ñoo xam bu oté waxtaan mitin ñi ñew tok su yonti yalla maama di wax ñi yëngal bop di ré wa buñu génné jotaay bi rek ñom def seen mitinam bop da seet fu ñuy jaar pour yàqal yonti yalla maama ligéyam té lool même office yi nga gis ni loolu ko tardeel NGO yeeg government yépp léeg-léeg nga gis ko xamne dañ koy fal président bi la fal wan la na la yow la fal pour nga ligéy ya da ngaa jël office bi pour liggéey waaye bëggu la président doo fa liggéey lu baax sa bopp nga fay nekkal waaw parce que bëgguloo ko bëgguloo réew mi sa bopp nga bëgg kooku naafeq la ci office bi lu yàqu rek moo ko yàq waaw moo ligai liggéey dañ koy jox xarit yi liggéey bi waaye do ko jox sa xarit même ñun fi ñu nekk fi dëkk fi juddoo ni ci Gambia lu bari tardel nañu moy li alquran di jàngale mooy liggéeyukaay yi duñ ko jox ñi ko man dañ koy jox suñ xarit yi maanaam yow liggéeyukaay bi dañ la wax ne utal liggéeykat seetu la ñi jàng ba man ko de da ngaa dem seeti sa xarit yi wala sa doomi xarit yi nga dugal leen ci liggéey bu dikkee yàqu ko parce que mënuñ ko suñ government yi yëpp la ko terdeel office boo dem bu buñ leen ut loolu liggéeykat dañuy dem tànn ñi nga xam ne ñooy seen xarit yi seen doomi xarit yi duñ seeti borom diplôme yi jàng man liggéey bi léeg-léeg ñu ne ministre sàngam ministre sàngam ñu ne ministre bi amee mbay mi koo xam ne mosta dem tool mosta bay fa doon jàngee ci school ba xamul fa fi mbay ñu def la ministre bi amee mbiri mbay mi yow ministre bi amee mbiri mbay mi doo dem ci àll ba nga seeti doomi baykat yi nga xam ne bi ñoo jàng sax buñ génnee holiday dañoo dem bay ba léegi fi maa wax ak yow ñi ngi dëkk ci àll bi te jàng nañ ba wàcc nga jël ci ñooñu ñu dem dëkk ci àll ba di bu asamaan si tawee ñi dugg ci biir tool yi di gis mbay mi ñoñu ñoy tukki dem sin, dem fenen ak fenen dem seti machine yi nga xamne ne mëna bay ñi sawar ko isu ko ci nga dem jël ko xamne ne doomi Banjul la wala mosta bay su asaman si xine sax mu daw dug neegam teju dégg nga bu asaman si tawé bëggu da dëgg suufam ci eh, tankam ci suuf nga def ko ministre bi amé mbay so bëgg amé def ministre bi nga xamne mo yoré doa affaire yi bit gi yaram do seti docteur yi demal ci l'hôpital nga set ku jang ba wacc jang docteur xamne faj rek moy xol bi tojna am na yërmande nga jël ko def ko docteur naka la ministre bi amee mbiri wérgi yaram ndax loolu dëgg waaye da ngay jël koo xam ne jékki-jékki rek génne kii yóbbu kële génne kii teg fële ñi nga wuutal léeg-léeg ñu ne ministre sàngam bi lam jàng ak liñ ko jox dafa mel ni guddeeg bëccëg loolu nu ngi koy doxale lii bokk na ci li ñuy tardeel moo tax bi tubaab yi nga xam ne dem nañ seen seen bopp seen dem nañ seen seen seen euh, jot nañ seen càkkutéef ci àdduna soo ñëwee dañ lay laaj diplôme ak sa ak foo jàng ak loo man ak loo xam ñun moom boo ñëwee lañ lay laaj mooy foo dëkk ak loo dégg nga euh, macha allah foo jógee rek kon laxnax bun sarix mii axnas bun sarix mii naafiq la bu alquran di wax ne moo daan yàqal ti yàlla Muhammad di yàqal nit ñi lu tax dafa ñëw wan ne moom gëm na yàlla te gëmul yàlla bëgg na yunti yàlla Muhammad te bëggul yunti yàlla Muhammad kon alquran fu la waxee euh, euh, zahir dana la wax baatin moom nag li doon liggéeyam mooy yàq bokk na ci yàq mooy yàq mbayteef mi waaw di taxal xàll bi daay gi tàkk nay duñ am luñ lekk jur gi di xiif di dee di fatt teen yi nit ñi duñ root di di di agressé nit ci àll bi di leen rey jëf ju bon jooju moom ak tiimam bi loolu moo doon seen liggéey mooy agressé rek te lii tam muy wax noonu ne moo wàccoon ci góog ci kooku bu doon tee ñu ne wàcc na seetal problème bi xew léegi rek jafe-jafe yi nga xam ne am na léegi ci jël alali jàmbur yi ci sàcc ci jël juri jàmbur gi jékki-jékki ñëw dem jël gétt ak jàmbur dem ak moom jël ay xari jàmbur dem moom du feeñ dégg nga léeg-léeg ña ko waroon a feeñal ñoom ngay jël jox leen dara ñi denc la seetal rek kon Axnas bun Sariix mi mu wax ne liggéeyam mooy yàq ci kaw suuf di sàcc juri jàmbur yi di rey juri jàmbur yi muy ayab alquran ndax loolu nekk tolluwuñ ci jamono boobu ndax yow da nga ko bëgg a jël rek moomale ko démb déedéet tey jii ñoom moom aaya bi xoolal tey ni sàcc gi bëree demal ci àll bi soo jëndee ba am fas wu rafet doo nelaw guddi foo toll yaa ngi génn di ko seet ndax boo booy nelaw rek ñi enu ko yóbbu soo yaree xar ñi enu yóbbu ganaar seere ko ndaa gi ganaar sax boo ko fi amee defal leen néeg soo ko tëjut bu baax ñu ñëw ubbi ko yóbbu ganaar yi boo demee ji marché bi waxatuma sax léegi góor a daan sàcc waaye léegi jigéen ñi ak xale yu ndaw yi ñooy dugg ci biir nit ñi di doog baagi jàmbur yi di di sàcc mobile yi jàmbur yi kon aaya bi kay wax dëgg yàlla démb la wàccoon waaye aaya alquran bi kay tey la aaya bi duñ ko mën a rombee noonu di aaya bi tey lay jàngale moo tax képp kuy topp tafsir bi jëlal aaya bii nga bàyyi ko xel yàlla ñuy wax ne am na ñoo xam ne seen liggéey ci kaw suuf mooy sàcc jël alali alali jàmbur yi di yàq mbay TV jàmbur yi di wax di wax lu luy yàq duñ wax mukk luy defar fu seen kàddu jógee rek luy yàq la ba pare fuñ toll ñu ngi réylu nag aqasatul xassa bil ismi boo leen waxee ragal leen yàlla ñi réylu ci kaw suuf yàlla mu ne waaye baax na xasbuhum jahannama wala bisa wala bisal miaad seen punishment mu ngi leen di xaar te mooy jahannama mooy nekk seen mujj yàlla nañ ci yàlla musal su ko defee alquran nag ñi xamal nag ñaari am solo mooy mbayteef bi mooy élevage bi waaw mooy élevage bi ak yaram jur gi ak mbay mi bi mu waxee naafiq bi bi mu jógee di yàq lu wax mooy élevage bi ak mbay mi képp ku yàq ñaar yooyu rek yàqal nga dëkk moom suñ bëggee mu développe mbay ma danañ ci góorgóorlu waaye danañ góorgóorlu itam ca élevage ba mooy lan yar gi ñuy yar jur gi danañ ci dimbale ni ñi ñi amee caawa gi ci àll bi di sàmm ak yooyu danañ leen dimbale moo tax alquran isi ne waa jii nga xam ne yàqkat la bu demee ñaar yooyu lay yàq mooy mbayteef mi ak élevage bi kon liggéey bu bon la doon liggéey ci kaw suuf waaye yàlla bu ñu koy nettalil daf ñu ko bëgg a aaye rek pour ñun ñëpp ñu bàyyi suñ xel suñ kàddoo mu rafet buñ jëfee mu rafet jëflante bi ñu góorgóorlu ci dégg nga te mooy ku ndeku yàq yàq ta amul mucc te bu la ko yàlla fayee nga am lu la naqari laakin wan nañ ñu ne liñ amoon ci tayam jeex na dañuy yeewal foofu incha allah buñ dellu see danañ continuer ngeen ci suratu baqara ci aaya bi nga xam ne borom bi mu ngi waxtaan ak ñun ci lu aju ci wàllu nafsu xalqi ak nafsu àqu te muy bakkan bi wa axiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wala siyama xubbun ida rumta burahu takunu taridan fi mawaqifi majmaci wa zalika hubbu lqutbi ahmada saydi وذا موقع الأسرار في كل موضع الحمد لله